Pape Moussé Diop maa ngi lay nuyu. oui. Euh, nga bokk ci ANAMIS d'association nationale des militaires invalides du Sénégal. chargé des affaires sociales bu cellule régionale bu Thiès. seen association bi fan yi def ngeen ay sorties médiatiques. Euh, di ñaxtu lan ngeen di ñaxtu exactement lan moo leen metti si yaatal. waaw soxna si maa ngi lay gërëm maa ngi leen di sant di nuyu seen rajo bi yëpp di leen gërëm. di rafetlu seen euh, teewaay euh, xam nga euh, kaaraange réew armée ko yor mënoo jël ay ñoo xam ne bi ñuy ñëw armée benn bëñ sax manqué wuñ ko yàlla def ñu dem ji biir armée di xeex akat di yor kaaraange ba ay laago dal leen ñii ñu dagg seen i tànk ñii ñu dagg seen loxo ñii seen i bët dem ñii amay blessé ñi ngi motal ay loxo ñii ay tànk ñii ñoo xam ne ñu ngi tëre nag feebar yoo xam ne du wér ba moo leen di yóbbu barsàq ñu agréé ay pharmacie dans ce pays là pour pharmacie yooyu den jox seen i garab mensuellement ñu xëy un bon matin ni pharmacie yi fay ñu leen pendant neuf huit mois à neuf mois ñu laa di arrêté joxe garab yi ba am ñu ci xaw ñu ci dee je cite le nom de Ibrahima Diop qui est décédé euh, le jeudi bële passé la gaañu côté ambassade de France la daanoo ñu yóbbu hôpital daan principal fa la dee ñu woo di santé Abdou Aziz mu ñëw ba foofu dañ ko defalee autopsie certificat décès bi certificat autopsie bi yëpp nga fi donc parce que euh, dañu jël carnet yi xëy benn bis rek ni carnet yi baaxatul dañ koy dindi changé ko par ay puces puces yoo xam ne plateforme bi Sonatel ñoo ko yor ak maintenance bi léegi puces yooyu dem na ba gën a élevé taux bi muy génnee par carnet yi te loolu Abdou Aziz Ndiaye directeur de santé ak Omar Sarr directeur de l'intendant dañu wax CEM ga bi nga xam ne mooy Cheikh Wade jiite armée bi ni ko plus yi moo gën a économique moo gën a praticable or que du dëgg dañ ko nax na ubbi ay bëtam xool moom CEM ga je l'interpelle et j'interpelle maa ngi interpellé CEM ga bi di di interpellé président de Sall qui est le chef des armées ñu xam lu ci xew parce que dañ ko nax maintenance bi rek déjà ak plateforme bi ak euh, li Sonatel wala def dafa rëy ba yóbbu taux bi ci facture boo xam ne dafa élevé pharmaciens yi aussi boo leen fay lu ñu mën a joxe garab yi ci lañ arrêté garab yi ba am malade yu commencé dee am ñoo xam ne ñu jël seen xaalis dem jënd ko garab ba mu jeex seen pension minable parce que président bi mu nekkoon muy Issa Gueye mandaam depuis 2005 mandaam jeex ñu def ko benn prolongation dafa feebar mu ngi hôpital bu Tivaouane dafa AVC yi muy dox di wax ci rajo yi naan l'armée ne nous doit rien waxul dëgg day wax lu ko neex parce que dañ ko corrompre c'est un corrompu donc déglootuñ waxatul pour sunu moom boppam lay waxal. waxatul pour le nom de de de l' association nationale des invalides militaires waxatul pour sunu kàddu déglootuñ ko doxatul sunuy waaw parce que la muy wax état la arrangé loolu muy arrangé état nag moo koy dugal fa mu jëm mooy tëmbal état ci ndëgg sërëx suñ terrain yaa ngi nii Mbambilor nduxu rëppal xamuñ ci dara ba léegi jotaguñ ci loolu négociation yi ñuy def au camp Dial Diop ñu ngi nii di ko renvoyé pendant plusieurs jours hier la waroon a jeex mardi ñu renvoyé waat ko ba naan le 31 kon ñoom dañ fi nekk di naxaate foofu colonel Alpha Sall war na rendre compte ministre de forces armées Sidiki Kaba on kas le ñun du ñu daw du ñu dellu ginnaaw dañuy rey mais du ñu dellu ginnaaw ñi ngi organiser ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay point de presse ak ay point de presse yoo xam ni suñ ko réglé wul nous allons passer à la vitesse supérieure sunu xar yi nga xam ni ñoom ñoo bokk. terrain bi nga xam ne ils sont sous les couleurs nekk au front di liggéey suba ngoon ils sont au courant de ça et ils seront découragés parce que demain tu peux quitter les rangs et rejoindre le rang des invalides parce que nul n'est indispensable tous les militaires se valent plus yi ñu indi dafa indi problème médecin yi parce que consulté wuñu leen consulté wuñu pharmacien yi da ngay dem ñu la réseau bi amul tey lan mooy réseau bi amul nga perte ko parce que le c'est le trente demain le premier ci beneen mois nga perte mois boobu loolu fu ñu ko teg nañ ko teg décret bu ñu voté ak loi bu ñu teg nan la ko de service bu bu directeur de de l'intendance mën a dindee comment naka la ab ab ab note de service mën a dindee ab loi akub décret c'est archi faux am na kon xaalis bu ñu bëggoon a luubal peut-être man maa ko wax donc na président la république ubbi ay bëtam yable ñu defal ko investigation mu xam nan la demee ak chef euh, d'état-major des armées Cheikh na yónnee ñu xamal ko lii nu mu demee ba lii dikk ministre des finances na yónnee moom it ñu palpeel ko affaire yi nan la demee donc nu sommes fatigués ay comité ad hoc la ñu doon def créé loolu ñu ngi dem ay réunion unité jour suba ngoon guddee bëccëg on les renvoie mel ni ay xale yu ndaw pour lan dama ni kaaraange réew kenn du ko fooyee Macky Sall naka ouvrir ses yeux ubbi ay bëtam xool mbaa mu yable pour xam qu'est-ce qui se passe wala mu woo les intéressés ñu yabal ay nit mais nii ñu defal nii dañ koy nax CMK tam bu fekkee yow ko ñu ngi koy nax entre Aziz Ndiaye ak Omar Sarr man maa ko wax je les cite nommément lii ñu nekke du dëgg du yoon. nous vivons dans un calvaire. Mmh. est-ce que Sidiki Kaba wax na ci dara ministre des forces armées. on l'a pas entendu dégguñu ko ci benn rajo. du dir fa bi nekk xam ne armée ko jiite du fenn fu ñu ko dégg te assemblée nationale bu député yi wax na leen ko Thierno Alassane Sall wax na ko Guy Marius wax na ko beneen député de la place wax na ko Farba Ngom wax na ñëpp wax nañ ko dama attention on ne joue pas avec la sécurité d'un pays nañu jox suñu cër qu'on rend à César ce qui lui appartient ko ko delloo loolu moo jaadu loolu moo jaadu les pharmaciens sont fâchés, les militaires invalides sont fâchés. Et ceux qui sont dans les rangs sont au de tout. parce que ñu ne ñoom ñoo nekk ñu wax donc nañ ko lijjanti ñu xam ne lii kenn du ko fooye lii caaxaan bu demee ba ay mort di ci am jéggi na dayoo kooku rythme cardiaque am moo am problème ci lu ay garagam pendant trois jours mu daanu côté ambassade de France ñu yóbbu ko principal mu dee. Ibrahima Diop la tudd si vous voulez interpeller d'autres invalides ils vont loolu Issa Gueye di wax en tan que président boo xam ne 2005 ba léegi yaa ngi fi feebar nga da ngaa AVC yaa ngi hôpital Tivaouane di liggéey ñu wutal a liggéey foofu rek tax nga bëgg a jàmm say naa ko booy waxati waxal ci sa tur mais bu waxati au nom des invalides tu ne représentes plus rien dootoo tous te bu ñu la déggee ti tur booy waxal pour sa compte bopp ndax jox na li la war jox la yow yaa ngi lekk di ko naan ñu ngi jël suñu xaalis di ko jëndee ay garab pour que l'affaire la rétablisse dans les plus brefs délais. Mhm. noonu la demee soxna si. waaw léegi à part problème mu médicaments yi am ngeen yeneen euh, jafe-jafe yu ngeen bëgg njiitu réew mi. taxaw si ñu am bari na dañu waroon a dem comme par exemple yan. information yi ñu ciy nax boobu ba léegi ñu ñuy nax on nous leurre on nous trompe ñu ñuy nax ba léegi ñu ngi wut benn commission ad hoc boo xam ne sax ñu jox leen ay rendez-vous. nee na leen ànd leen wàcc ci terrain bi rey seen bopp mu jeex benn yoon moo gën a gaaw voilà looloo gën a gaaw mu jeex coow lii benn. dund benn wala dee benn parce que dee nañ ba pare deewoon nañ bu yàgg donc ay ay ay moor lañu fek encore di leen yóbbu leen ñun gën a médd xam nga ku dee ba pare boo ko defee moom day médd hmm. te médd tan a koy lekk tan soxlawul médd moo tax amul bàkkaar léegi da ngeen di dox dem pale waaw wala déet lu ngeen loolu la ñu bëgg ñi ngi rassemblé wu di waxtaan ñi ngi di pré point de presse ak conférence de presse ñi ngi koy def ci loolu lañ jëm parce que ay duwee weesu bàyyi dee na noonu la demee. d' accord kon euh, fi ñu toll nii yéen daal appel bi ngeen di lancé da koy lancé directement. Euh, le président Macky Sall dañ koy lancé de la nation le chef suprême des armées monsieur Macky Sall mu yónnee ay ñu ñu xool wala mu dem ubbi bëtam xool lii ba mu ko bett ñun tal nañu leneen fi réew mu toll lu dul leneen leneen la ñu waroon a tal lu dul selon say militaire sa kaaraange réew. ñu ne fi di gën ay milliards di ko paajoo partout. ñu ñu ne fii di galérer pour lan pour lan kan moo ci gën a yey bu taayee tey assemblée bu dee am kan moo tax muy am ku tëdd bay nelaw di biir kan moo tax muy am dama ni qu'on se leurre pas nañu waxante dëgg qu'on se regarde les dans les yeux nañ xoolante ci ay bët loolooy dëgg kaaraange réew kenn du ko caaxaanee. Euh, on dossier dossier wu jàmbaar des golf loo si xalaat. si indemnisation yooyu yëpp ñu ngi fii dafa bari yooyu yëpp mi ngi fi mais Sénégal dafa dafa seetaan ay soldaram daf leen seetaan ay blessé de guerre am Mali gi gën a ndaw rek boo demee ba xool invalide yi ma da nga leen di da nga sa xol day sedd dama France hôtel des mais la au Sénégal on a pitié de ces de ces de ces blessés là. Euh, lan moo la nguur gi war a mën a def pour euh, condition wu militaires yi nekk condition yu baax rawatina. Euh, ñu nekkoon ci revalorisation la war a def revalorisation ba pare. indemnisation bi na ko na ci taxaw mu gaaw. mu delloo invalide yi blessé de guerre seen carnet yi ñu comme moo gën a yomb puces yi dafa seer pour ñoom parce que plateforme beeg soantele entretien beeg maintenance bi dafa métti moo tax facture bi élevé dañ ci bëggoon a jaar sàcc xaalis lekk a ah bon est-ce que li am nga foo ko teg. mais am na fu ñu ko teg parce que déjà ñu naan ni ñii nii mën a huit mois mun leen mois qu'est-ce passe lu tax lu xew nañ ñu wax li xew nañ ñu wax lu leer nañ ci ne duut baaraam ni lii nañ ko wax. d' accord Pape Mousse Diop euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di sant leen gërëm leen di jaajëfal. voilà may fàttali ni bokk nga ci ANAMIS d' association nationale des militaires invalides euh, du Sénégal chargé des affaires sociales bu cellule régionale bu Thiès.